asalaamaaleykum les jeunes bari na lool may jot ay bataaxal yu nga xam ne dañ may laaj ma jox leen benn idée business li ma mën a wax ci loolu mooy d'abord il faut ñu leeral ne business du jël xaalis maanaam un million nga soppaliku def ko un million cinq mbaa un million sept loolu luxus la mbaa boog day dellu ci la nga xam ne moom la ñuy wax ci xaalis dañ koy lijjanti. nekkuñu ci cadre boobu parce que xam nañ li mu ñu jural tey réew moo xam ne tey jii dafa nekk ci ndóol dafa nërmel ci économie boo xam ne taxawul liggéey la wax liggéey nag mooy li nga xam ne mooy produire de la valeur donc yow mi nga xam ne da bëgg a conseil business xamal ne business liggéey la nga ñaq ñaq boobu tey bu ma lay jox bu ma lay jox conseil mooy gis nga liggéeyal li nga xam ne moom la sa xol bëgg liggéey li nga xam ne si la la sa xol yebal c'est extrêmement important maanaam bëgg-bëgg dafa am doole ci nit parce que moom mooy tax nit bu demee jànkonte ak loolu mu bëgg lépp lu nga xam ne daf ca nekk ci gàllankoor dafa nekk ci mitit dafa nekk ci ay tartar daf koy muñ mbëggeel rek moo mën loolu bu dul loolu mënul sotti donc boo duggee ci business il faut mu doon business boo xam ne nanga ko bëgg na ci nangoo sonn parce que tey jii yaa ngi may laaj conseil mais conseil bi ma lay wax dafay doon loo xam ne comme générique la parce que li ñu war a xam mooy business boobu nga xam ne moo la war a jariñ war a jural la suba xéewal yu mag a mag a mag gis nga business boobu yaa ma ci gën a géeju fuuf parce que bu fekkoon ne maa la ci gën a géeju kon man mii doo ma fekk fii ma toog kon man may dem doxal loolu gis nga valeur li tax mu mën a am da ngay fekk benn uude mu sonn ci la mu nekk ubbi ci xelam ak xolom yàlla defal ko ci fatxu boo xam ne boo xooloon junni yi uude yeneen moom dina ci feeñ parce que na mu koy defee ak fa mu ci toll ci xarala ñeneen yi tolluñu fa te dara yóbbuwu la ko lu dul liggéey donc idée business demal ci li nga xam ne moom nga bëgg boo ci demee nga am tuuti nga def ci nga xam ne tuuti boobu door waay la waaye la ca am solo mooy daj ba nga fay daj coono ba nga cee daj tartar ya ca am loolu mooy li nga xam ne suba mooy convertir indi la nga ñaay bu dul leneen non yaa ngi jëm ci loo xam ne sottiwul très franchement donc idée business bëgg-bëgg beneen li ma la ci mën a jox bu fekkee ne tey dama la mën a wax loo xam ne dans un cadre général te mu doon loo xam ne boo jëlee ay recoupement yu bari nga teg ko nga dandale ko génn ci loo xam ne mën na jariñ Moy, xolal ci li le wër ben produit mba ben service bu nga xam tay ji nit ci attan nañ ci def sen xaliss nit ñu ngi rang pour jënd ñaar la mëna doon produit wala service parce que adina yëpp business lo règle un produit ou bien un service na doon nak ben bo xam nit ñi gis nga ne nañ ci def sen alal attan nañ ci def coono pour mën ko am loolu idée business la donc loolu mën nga ci dugg donte ñëpp a nga koy def waaye xam nga lan nga ci mën a am ci ngañaay boo cee dugg na fekk nga préparer sa bopp nga namm sa xel ak say disposition ba loolu ngay dugg fexeel ba na mu baree na nga ci fexe yow ba am ci manoore maanaam nga dem ci biir sonn ci mbaa nga gëstu ci mbaa nga am ci yitte ba nga xam ne gis nga ci beneen façon buñ ko mën a defee à part bii am maanaam da ngay yokk valeur ajouté ou bien da ngay indi ci doxalinu mbir mi naka nga ko mën a soppee ci façon boo xam ne noonu ñi ko ñëpp di defee yow man nga ko defee neneen noo xam ne mooy sa touche yow mooy sa griffe yow mooy sa signature yow bu ko defee bu boobaa diñ ci mën a ràññeeku loolu tam idée business la donte da ngay jaay mburu

am un million cinq cent déedéet alal dafa war a ñax donc li am solo xinteel sa bopp pour dem uti liggéey boo xam ne attan nga ci ñax ñax boobu nga sonn ci namm si sa xel jaxasoog sa xol nga tuur si sa ñax yàlla indi leen di man naa la sama sëriñ